Jai Lala. Madam, se marche, se me dervi jarul. Su madam, du ma ama xaalis. ah xam naa dañ ma liggéey. bilaay. wante kii. ñeenti weer mi ngi fayu ma luwaas. xam daw. suba teel lay xëy mu dem yoonam wante. yàgg yàgg di di nga ma bakana xawma fu mu dem ba xam naa defe daw wante baax na xara meñ baax na ole si ma A bi ni mu mel ame bale si ma pare bale me gëna si ma si ma utu ceeb yàlla xam na ngaa de defee já te yàlla xam na moom dund bi nga dee sax moo अरे मैं बाहर को कि मैं जेलसी में कि मैं थोबो मैं थोबो आई तो वो तेमसी जाला मैं मैंने पहले मैं के बिलाई भी देख भी देख के वे मैं थी के वो बहुत जेलसी saako ceebu juróomi junni fan laa ko jël ma ne aw ma jëkkër ah fan laa jël loolu. salaamaaleykum salaamaaleykum. ah mère xanaa yow lay waxal. maaleykum salaam lala. moom laay seet madame. ah ko de. gisoo ko. ko. ah. waaw ah, kon xaaral ma toog xaar ko ndax dafa newoon fi. xaw ma de moom laa seeti moom bi nga seeti moom laa seeti na ko fan yëpp maa ngi ko seeti fii gisima ko baax na dinaa ka gis. xaaral ma yaa ngi kaas rek naka liggéey bi. kon see yoon nekk si loolu ba ko toppatoo mais pare si may taw ko si maat yi may taw ko kiri ñu defee seeri ngaa si mi seeri. Ne pare togo kidine me xam saxarit ah, ah, la ayo may wax yow nga bu wala topoto ba pare nga nga may laaj ndax sama xarit ah dama lay laaj rek sa xarit la sama xarit la sa xarit bi njublang la njublang bu mag la ndax man deme ko wo fi ñeenti weer fay me si me xaalis ngi ni anu me ceeb de me dem léegi si jalo me leb ko ceeb bofo ngom fayu la ñeenti def me daw si me he fajar ma fekk ne mi dem si me di me ko gis su be ke je garite ba ka gis nga wa ko tay man ak mom bu gisee bi dina xam si ker di duma ko tabakh pour olof olof baaxul ma liwe ko bi rek mom du ma fay si me khalis maami nii boo gisee dinaa wax ak moom. ah xaw ma ndax di nga wax wala doo wax baax na maa ngi nii de di dina ma fay tey si ma xaalis dina ma fay. waaw yow ndekete li may wax yëpp yaa ngi fi. madame. waaw yegg si naa sax waaw léegi léegi. eh defaru amalu fii taxawaay. fii doo dugg doo dugg. waaw may seet yëpp yaa ngi may daw. yow naa la daw. yaa ne may defi. kon fan yëpp ma feebar. maa ngi ci biir feebaruloo dara jotu la mi ne. ah. yow da nga may yàq. sa histoire bu métti bi nga war a bàyyi. dëkkandoo dafa am am àq si lan. lu tax boo fayee kay du am àq. waaw xam ci biir defaru. ma ne doo doo dem fii kay moom doo doo ko dem. mère bàyyi doo dugg. bàyyi mag nga mag su def yenn yi li nga def ni du yoon da ko eh, eh sa iya, ya nekk da ngay toog waaw dafa si nekkal la da ngay toog graw defal ndànk dañ koy arrangé kii du du baay waaw taxawal baay sama tubay da dugg si dugg baay sama tubay seeyoon naa ko du. waaw léegi bàyyi caay gi. déedéet ko. sa xaalis mosul manqué. fan yii laa feebar amoon la benn retard. mi da. waaw te bu neexee yàlla naa la ko fay. ñeenti weer fay leen. dañ mu yël meer. doo dugg si douche. bàyyi ma dugg dafa gën damay doog a defar de. ah doo fàtte dem si nga fàtte fay luwaas. waaye su ma fàtte wu dem si douche nga fàtte fay luwaas. si suma tubay. du dugg si douche de. yow moom ko fële. ma ne doo diw foofu. ma ne bàyyi sama tubaab yi. doo diw foofu. da nga def dof def. yow il faut que li nga ëpp na nag moom li ëpp na nag. moom dëgg la moom dëgg la moom dëgg police dégg nga da ngeen police. da ngeen police xaaral ma ñëw. taxawoo il faut que mu am ci yoon. parce que da ngeen police. xaaral da ngay déglu. wuy ma fii. non maire bi dafa bëri mbépp mbépp mbépp mbépp mbépp mais mais mais ak yéen di wér yàlla bi. te yow xam nga si li liggéey si yow. yéen a ngi dem police man lii lii rafetul. man mii dafa rafetul. man ngay xam police. da ngay dem police bul ma bul dóor bul dóor bul dóor da ngay dem police. su nga boo nekk man nag dinaa la def ko bon.

waxtaane mu ñëw mu xool fi waaw fii si na kër la ku fay li waa si ma génne la foofu seetaane boobu demal nga ñëw demal bu ñëw fii di nga xam waaw fii si ma kër la ku fay li waa si di di nga génn foofu baax na nga topp dëgg foofu bagage yëpp maa saani simbee ni foofu te xam njaaga moom nit la não Nani washi makere do kafai ko. Luta. Luta. Mune de de washi fu karje. Wo ko minya mu hol. Mune mu hol fofu. Man do do fale polis. Fale sandere mori. Ngo sandere mori nge মানে বাড়ি সিমে কেরিলা কাম Eu tava assim, aí me rodo então, que por isso olha, se é bucar te mudo o que ainda água vou ramo. E nem ramo.